waaw ba tey gars yi xoolal li ma leen ko diggee woon rek ñu ngi nii ci loge yi staff Wally ak euh, orchestre yi ñu ngi fii léegi xoolal man sama fi daare damay fëgg porte par porte entrez asalaamaaleykum na ngeen dee maa la raw sama mais Fatou ci loo nekk. yaa ngi puudaru. a tey loo nar a aw tey. tey boo awoon lay baatare. acca boo kon dina neex. waaye gis ngeen mi ngi noonu kii mooy Fatou mooy aw Waly borom baat yi sew yu xuur yooyu noonu ñii la. acca ñu dem ci keneen ki. mais je vais te faire ça tu es ma copine je vais te faire ça. oh my God. regarde comment elle s'est Waouh Alors là, <laughs> Mais c'est ça qui fait la différence en fait. Mais laissez-nous finir de faire. Ah, ça, c'est ma Daniela. Comment tu vas Je vais bien, mamie, et ce que tu prépares aujourd'hui, ce soir Ah, on va bien danser, on va bien chanter comme d'habitude, le show. Ah bon ah, Vous préparez quoi euh, grand spectacle, comme d'habitude. Tom, tu connais Walid Ah bon, maintenant tu es une Sénégalaise, tu parles, tu fais des comme ça. Et eh, maintenant, Daniela, oh Ah, mais le Ramdan, c'est la bonne école <laughs> donc c'est bon on va partir on vous dit bye bye ñu ngi dem fëggaat yeneeni buntu ñu fëggaat fii waaye damay dugg kay salaamaaleykum damay dugg dayel teer ngi sant bu baax a baax na mën naa la de maa leen raw mais ci loo nekk ñu ngi rek mais yéen a ngi relaxé de nekk ci clim bi nii loo leen waajal tey. waa di waajal rek comme d'habitude rek di jéem a def luñ fi mësul def rek xam naa nag du yomb. waaye ñu ngi jéem. mais yéen da ngeen yàq waa Gambie de. Hmm. ah est-ce que du waa Gambie ñu yàq nag. sañse yi bari na démb moom gars yi dafa mel dañ doon xaru. ah dagal naa si waa Gambie la nag Gambie bëgg waali mais présenté wul waa Equivox ñu xam la ñi lay seetaan. waaw salaamaaleykum waa Equivox man la Abou Dieng bassiste arrangeur compositeur Wally Seck euh, waaw jóge dakaar kon yu saf yooyu naan dish dish yow la. nee na yi naan bum bum ci suuf. Ah, waaw di dóor def dish dish kële la waa jële toog. kon waa jee toog borom nel la kaañ dem xool ko kon nañ dem. nañ dem nañ dem nañ dem nañ kii kan wala boog ci loo bon sant sant nañ bu baax a baax a baax. mais présentel téléspectateur Equivox euh, TV ñu xam yow yaay kenn. man maa ngi tudd Ousmane Camara ñu may woowee mu kabaru man maay Batiru Ramdan. mais tey looy nar a ba baat looy baat tey. comme d'habitude rek ni ma daan def rek ni ma daan sonalee gars yi rek. yow kon rythme cardiaque yi yaa koy yokk. man maay moteur bi. ah je général. mais tey loo indi. bon yeneen yu bees yoo xamante ni pour yéen la. ah bon dañ surprise ba rek jox leen ko. kon ñu xaaral ci suuf. xaaral ma ci suuf. waaw ba ci kan. kuy fëgg kuy fëgg ñu dem 204. site bi. amiin ba mu gën a kawe mu jur ay ay yu waa télé yu bari daal. Amin jaajëf ñu lay remercier bu baax kàddu yi rafet na kon ba ci kanam ah. waaw waaw ba ci kanam rek gars yi dem yëngal ba mu saf. kon jeex na ñu fëggaat beneen ne xoolal sama toos wala ba toos. man xool dama koo bëgg xool. yéen a ngi bett yéen a ngi bett nit ñi quoi. sango guñu. waaye toos déedéet yow toos tout le temps da toos tout le temps da ngay toos xoolal yow jaru ko loolu yëpp jaru ko yow da ngay nice. mais lépp jàmm. ci loo nekk. yàlla na jàmm yàgg. ci loo nekk toos. di sant yàlla bu wér a wér a wul ñu ñi lay seetaan xam yow yaay kan. non ndeysaan. alaaji sami cuun. laay laay la. alaaji sami cuun la de. cey loolu. moom lañ may wax. ah kontaan nañ ci loolu. Ah, vraiment ngay nijaay yu waali di tonton. waaw gis nga loolu yàlla dogal. boo yaa ngi waaj pare nañu. lu ñuy waajal. fii. daa mel ni yaa yor seen cumbukaay de yow loo ma wax dama koy gëm. non nañ ko def surprise. Hmm. te doo teg dara sama loxo. kon dama leen di jiitu. kon doo ma may dara nii ak ni ma ñëwee nii maa ngi sedd sax. cat dafa gaaw cat. Hmm. waaw kon père ba ci kanam yow de boo sangoo toj fi père. per nga ni sangoo goo nii kon yees di dem feneen kii moom ubbi na bunt sax te ñëwaguma tons tons si loo ne sant yàlla sant yàlla bu bëree bëri tons heure bi waroon na fekk nga pare bu yàgg tons pare nañu pare nañu mission lay mettre en clinique pour ñu wàcc dans 30 minutes mais présenté wul ah, téléspectateurs yu lay seetaan Equivox TV je m'appelle Roger je suis partie de l'ESTAF je suis collaborateur du management ok ouais c'est ça Roger Diop s'appelle comme tu veux. mais booy bi noo ko waajalee. non mais comme d'habitude rek. Mm. gis nga fii démb ni mel. te tey lay gën a. loolu ngeen wax de. loolu lay am incha allah. kon ba ci kanam. incha allah. ok ñu fëgg feneen. Roger. salaamaaleykum. Eh, ubbil buntu bi. Hmm? ubbil buntu bi. bon on est en train <laughs> Moi, je vais entrer, hein, mon frère. C'est quoi ces histoires-là hein? Méchant. waaye damay dugg waay ku ne ma entré damay jógo ton si loo ne jëlal te bu nelee ci caayaam ji nekk fii naan ay jëlal way xoolal du ma ko wax dara sax sa lampe waaw père xam nga luy xew rek booy bi nekk fii yëngal dëkk bi sonal nit ñi. ndeysaan yàlla na ko yàlla sàmm sàmmale leen. amiin ku yàlla may la. te dañ ko war a nangu nag wax dëgg yàlla ñun ay papaam lañu. man gis naa lu muy def papaam yi sax mënuñu ko wax dëgg yàlla li muy joxe papaam yi sax mënuñu ko loolu mu mën nag yàlla ko mën la yàlla na yàgg te ñun tamit yàlla jàppale ñu bu baax surtout yéen. dëgg kontaan si yéen na fii dina tojaat. looy wax nii. wóor na yàlla. day wàcc ba zéro. si suufu zéro am na lu téye zéro ci suuf. foofu lañ jëm. <laughs> ay waay ji ay waay ji ay waay ji ay waay ji ay waay ji père loolu du ma ko jël waaye ko nangu. salaamaaleykum. ñu ñooy wax salaamaaleykum. man maa la koy wax salaamaaleykum. ñu ñoo lay wax salaamaaleykum. yow ku sob nga yow. yow fekk gars yi di sañ di di waaj a sol sol ay yére nga bëgg a bett yi. moo ah. neex mais journaliste bu garaaw nga ni mais nag c'est normal ah parce que liggéey bi muy def macha allah xarañ na ci am na ci fulla am na ci fayda ba pare bëgg nga ko sànq dañuy waxtaan ma ak yow nga am foo waxee man mu wóor ni ma ni kii di wax ak man nii ba pare jigéen nga nga doon jàmbaar kon yow dañ lay nuy fay la di la déglu. buy bii xamul lu tax mu waane buy bi dafa a mais moi je parle français. eh xoolal tu vas parler wolof yi. tu ici tu vis ici au Sénégal. ok ok ok. tu c'est quoi ces histoires là. tuuti rek naa def. maa fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. naka affaire yi. bon nice hein. Eh? yaa ngi cool. yaa lu tax waane. Eh? Hmm. j'ai pas compris. yaa gën a xam lu may wax. <laughs> bon je me nomme Cheikh Cheikh Niang. le guitariste malien de Wally Ballago Seck et euh, Ouli Ramdan. Ouais. Euh, qui t'a mis en rapport avec Walisek hum? Qui t'a mis en rapport avec Walisek bon, C'est Dieu. C'est Dieu. Il t'a trouvé où En train de jouer ou bien il t'a découvert où Bon, c'est Dieu. Tout simplement. Donc c'est Dieu donc. <laughs> donc c'est Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui, ce soir, ici Bon, ce soir, quand même, euh, c'est du surprise, quoi. C'est du surprise. Donc on va... Bon. Mais tu vas jouer comme d'habitude, hein Non, y a beaucoup... je t'ai remarqué, tu danses très bien le, le souvent je suis Wally, la façon dont il danse, je regarde bien, euh. j'apprends quoi. <laughs> asalaamaaleykum la ngeen def waaw Luc Thiaye Luc Thiaye yow de waaye <laughs> gaa def yaa yow loo may joxe nii ji ngay bëri tiitar grand yu bay micro yow nga nekk di ànd ak Wally Seck ah xale bi xew ci jamono micro bu ne mu téye nga na maa ragal micro. loolu moom leer na moom. noo tudd. man Seydou Boy. Seydou Boy Seydou foo toj. man fépp. fépp fan. fépp àdduna bi yëpp. àdduna bi yëpp tey loolu Wally tey lu muy waaj tey. ah tey moom la ñuy def fii doom comme la defee doom de Paris rek. gàmb bi démb dangeen koo dóom ba pare tey moom tabax la xanaa. non non dañ koy dóomaat. dañuy dóomaat. gazon bi la ñuy dindi. bàyyi fa suuf si. ba dañuy indil facture Macky Sall na ñëw leen tabax gazon bi. benn problème Macky Sall ak Adama Barrow yëpp benn la benn la benn la benn la Sénégal kon baax ba ci kanam. kii Benjamin lay doon. ma toog nii xaaral Ah, waaw gis nga ñu ngi nii ak Benjamin dafa booy bi ne dafa xaw ba tiitar quoi ñu ngi nii def caay def laafa def ay lile nii di tiita ganaa naa def yow yaa ëpp ngi <laughs> ñu ngi sant tey looy waaj tey euh, bomb rek comme d'habitude mais eh, yow da nga xaw ba tiitar da ngay téye poñe gars yi ci pet di signaler naan tey laa leen rey <laughs> non xam nga euh, faramaare dañoo bëgg waale amuñu ci sago bëgg ramdaan moo tax ñun tamit buñ leen koy jox duñ leen ko bëgg a jox ndànk dañ leen koy jox bu baax a baax ah, te looy waaj nguuda amina kon yees ba ci kanam mbay si ay way nii la war a mel eh, eh gis <laughs> ay way nii la mel mel ci loo sama léwal bi ngeen bëgg ci kii nii quoi wane waale quoi ci site bi quoi waa gis nga muy caay nii wee ah, ah cim. mais mbay man du ma la laaj dara de benn question rek laa lay laaj. Hmm. yow Mbaye luy sa secret. waaw sama secret moom mooy doon taalibe rek doon ay jullit doon taalibe ah, bëgg Sëriñ Fàllu hmm, ah, yéen ñëpp jàmm bëgg ñu ludul musique ak it suñuy soppeek suñuy fans ak suñuy mbokk hmm. loolu dong la affaire bi moom. ñaan yàlla defal ñu jàmm rek defal ko suñuy fans. dëgg la waaw parce que ñu ak ñoom famille waaw donc heure bu ñu xëyee ñu ngi jéem a ñaax suñu bopp. ci naka la leen mën a bégalee. dëgg la jour et nuit di xalaat. di liggéey rek pour ñoom. incha allah moom ci loolu rek la ñuy dox. tey lay accompagner Wally. waaw waaw gën a daas. gën a daas gën a daas rek. Mm. ak dolli cere yokk ñeex rek. ah kon ba ci kanam. waaw déet mais. Mm. ba ci kanam kay amul. Mm. ndax dama bëgg na gars yi préparé incha allah le 31 décembre. waaw waaw loolu waa Equivox. ñu ngi leen di gunge fépp mais yéen kay yéen a ngi voxé fépp. gisoo na ñu ngi boxé temps yi yéen a ngi boxé yéen a ngi vaxé. temps yi ñoo moom ring bi yëgoo loolu. non yéen a moom yéen yéen fi mu ne sax yéen lañ ñu rey. temps yi làmb ji ñoo ko téye xoolal promoteur yi ay xoolal 200 millions lañ leen ba maram da ngay mag yow. Ah, ah da ngay kii ah yow doo wax man ah? nga foog naa la bàyyi noonu day yomb nan nga tudd. Sagar. Sagar ni muy waxee Sagar Sagar. Sagar ci loolu ne. maa ngi sant bu nga bëri kersa. waaw. Rose gis. Rose gis. <laughs> Armand lay doon. kii mooy Equivox. waaw. waaw siyaar nañ bëggee nañ ñu ngi nekk ñu ngi nekk ci wàccaay di waajal euh, bis bi te xam ni yi moom sunu réew la euh, Sénégambie la lañu wax xam nañ gis na nit ñu def moo waral dañu nekk ci wàccaay di dugg fas yéene sangu ñëw toroxal seytaan defar bu mu baax. waaw kon ba ci kanam. à suivre. waa gis ngeen de ñu ngi nii dugg gaa yaa ngi préparé di sangu di ful ful